wajalilaayi maskani tuubaabaat misras mi abijaayi xayri manabaat ñaari voies yi nga xam ne ñoo bàyyeekoo ci Mbàkke jëm Touba bu njëkk nii la meloon bari ñax lool ak mbalit ñaaw lool ci gisin lu ni mel daayira Touba ca kanam nooru daara yi nii ñu bëgg bërëb bi mel nii dem gaaral seenu bëgg-bëgg xalif général des Mourides sëriñ Muntaxa Mbàkke Bachir ci kàddu yi njiital mbooloo mi di sëriñ Abibu Mbàkke moom Cheikh Maodo Fadal ñoo xalaat dëkk bi lu ne garab dafay manqué garab yi dafa may na da manqué dëkk bi nee na daa tàngoor yi ci ëpp sax ñàkk garab moo ko waral ah, ay garab ay garab ah, waaw ñu ñu xalaat rek bëggoon fee am ci amee ndigal mhm. wut xam ne ko def ci yokk yi dëkk bi waaw waaw waaw loola waaw waaw loola ah, tawfeex ji rek mooy mu jaare ci noonu lu def ci yitte ju mat sëkk waaye loolu moom amul lenn lu jëm ci dëkk bi doo mm. ko gën a yitteel Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké Bachir rafetlu bu baax a baax li nga xam ne Touba ca kanam yéene nañ ko daal leen ciy dox ndigal ñu dem seeti Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdoul Khader wan ko projet bi nga xam ne am nañ ko muy projet naatal Touba Serigne Bassirou Mbacke Abdoul Khader daal ci def déclaration ci turu xalifa général des Mourides. Serigne bi jox na ndigal taalibe bi yëpp képp koo ko mën nga ànd ko ñoom ci lépp loo ci mën ci sa kattan sa alal ak sa jëf ak ànd ak ñoom ci liggéey bi ca tàmbali ba ba ca mujj ga. ginnaaw biñ ci amee ndigal ci la Touba ca kanam door phase bu njëkk bi moo di seetal li dalee ci rond point Mbàkke bi ba ci rond bu Touba bi mbooleem lu fay mbalit ñu dindi ko daal di bay ñax bi ngir waajal seen projet bi nga xam ne moom lañ dëppee naatal Touba moo di jëmbat garab ci distance bu toll ci ñetti kilomètre li dalee ci entrée Mbàkke bi ba ci rond bu Touba bi opération bi ñu doon amal nag doon bay ak waajal bërëb bi ànd nañ ko ak mbooleem daayira yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ak association yi rawatina waa croix rouge ginnaaw biñ ko setalee ci lañ waajal bërëb bi ngir installer mbooleem li nga xam ne dafa jëm ci barrière ak ay poteau yoo xam ne dañ koy clôturer mbooleem garab yi nga xam ne moom lañ jëmbat ngir mën koy aar ci lépp loo xam ne mën na koy yàq rawatina jur gi ci noone association yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi menuisier métallique yi maçon yi ak mboolem ouvrier yi ñoom ñëpp ñëw jàpp ci liggéey bi ngir ñu installer poteau yi ak barrières yi ngir waajal journée bi nga xam ne ci la ñu war a projet bi di naatal Touba. le 8 septembre 2019 dëppoog juróom-ñetti fan ci muharram atu 1441 ginnaaw gàddaay yonent bi salallaahu alayhi wa salaam ci la Touba ca kanam Nour daare ni lancé projet bi nga xam ne moom lañu dëppee naatal Touba ànd ci ak daayira xidmatul xadim bu Eaux fore ak Touba ville verte mbooloo mu takkoo takku wuy si leen ñoom ñëpp ñu ñëw ànd ngir fas yéene jëmbat garab yi nga xam ne moom la ñuy def ci diggante ñaari voies yi nga xam ne moo bàyyeekoo Mbàkke ba ni ngay duggee Touba. liggéey bi nag nekk na liggéey bu am solo boo xamante nii ay taalibe bàyyeekoo nañ fu ne ci biir réew mi ngir ñëw mën koy teewe ndax liggéey bi solo gi nga xam ne am na ko. xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir ñëw na ba ci bërëb bi daal di jëmbat garab ñaan fii waaye it rafetlu bu baax a baax jëf ji nga xam ne waa Touba ca kanam ñu ngi koy def te ànd ceeg ñoom. noonee la ko kilifa yu bëree bëri defee bokk na ci Serigne Fallou Mbacke moom Serigne Modou Aminta Fall. Serigne Abdou Samad moom Serigne bu ak yeneen kilifa yu takkoo takku kenn ku ci nekk ñëw participer ci projet bi nga xam ne moom mooy naatal Touba ñu doon jëmbat ay garab. mbooloom taalibe yi góor ak jigéen mag ak ndaw rawatina waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall yi ñoom ñëpp a génn ànd ak waa daayira Touba ca kanam ngir liggéey liggéey bu am solo bi nga xamante ni dañ koy jëfal sëriñ Touba ci dëkkam bi. taxaw googu nag jëm ci dëkk bi daayira Touba ca kanam duñ ci tàyyi benn yoon ndax fépp foo xamante ni war nañ faa liggéeyal Serigne Touba wala ñu taxaw fa ci mbooleem bëggi bëggi askan wi wala taaral dëkk bi daañu ko def. li dalee ci entrée Touba bi nga xam ne moo nekk ci Mbàkke ba ni ngay àggee ci rond bi nekk ci gendarmerie bi booy dugg Touba muy distance boo xam ne toll na ci ñetti kilomètre lépp lañ jëmbat lu toll ci ko cocotier di garab yoo xam ne gëstu nañ ba nemmeeku ne adapté wu na ci bërëb bi moo tax ñu daal di koy tànn ngir aar ko nag moo tax ñu protéger ko ci ay barrières yoo xamante nii dañ koo def ci juróom benn kilomètre ñetti kilomètre ci dem bi ak ñetti kilomètre ci dëkk bi lépp rek ngir liggéey bi mën a am suivi loole sax moom moo tax liggéey bu ne mel ànd nañ ci ak waa Maawu Rahmati mu jëm ci arrosage yu mboolem plante yi nga xam ne moom lañ jëmbat ci diggante bile. lii nag di liggéey bu am solo boo xam ne Touba ca kanam defati nañ ko ginnaaw buñ ci amee ndigalu xalif général des Mourides loolee nag ñoom mboolem daayira bi di soññaat ñi nga xam ne ñoo di taalibe yi ñu gën a fonk li nga xam ne moom moo di garab di soññ képp koo xam ne mën na koo jëmbat ci këram wala ci buntu këram mu def ko ngir ñu gën a mën a naatal li nga xam ne moom moo di dëkk bu sell bii di Touba ndax garab dafa am solo lool ci dëkkuwaay bëgg-bëgg daayira Touba ca kanam nooru daaree nii mooy àndandoog mbooleem taalibey murid yi ñu liggéey bërëb bu sell bii di Touba ba mel nii wajalilaayi maskani Touba baat misras mi abijaayi xayri manabaat